nee naa bind na lépp nag ñu ngi daal aw fanam gudd lool wér lool xoole sama jëmm nga wax mbaa nga jëf fa lu tax fañ ma tegoon ñu tegee mu bis ko bala nga jàll xaw a dëkkal dañ ko la yoon ak yoon loolu nag dalu ko moom fa mu da wane ko Sëñ Tuubaa ci jëmmam wane ko ci aw doxee na wane ko ci jëfee kon yàlla na fi yàgg loolu te yor ñu ko bàyyee kàddu ci Sëñ Fallu wala defal tawfiq xëy ci te def nu dëgg dëgg ay taalibe taalibe te nangu tam nangu suñu jërëjëf euh, sëñ Mor fa day dox diggante ab jullit ak xiiwali borom bi subhanahu wa taala dafay fat bunt bi nga xam ne moo jum ci borom bi subhanahu wa taala jóge ci jaam bi kon jullit bi munta dem ba ca jaam ba nga tuubal ko ko ndax yàlla ko maandu la bi nga def sa digganteeg sa borom nga tuubal ko yàlla mu jéggal la ko te bokk na ci sarti tuub sëriñ bi nee na nga fas ci ne bi nga koy tuub dootuma ko defaat macha allah sëriñ Mor ni nga ko indee am na solo ñuy fàttaliwaat mbokk yi rek ba tey ne ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci rajo bi di Lamp Fall ci Touba ak ba nekk ca dakaar ñi ñuy bàyyi xel ci bitim réew it jataay bi mi ngi amee fii ci kër sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdul Xaadir Mbacke waaye ñi ñuy bàyyi xel ci YouTube bi. moo xam ñu dem ci sit bii di Touba Touba Vision wala ñu dem ci Assalaamy TV wala sunu TV lépp ci YouTube bi ñu ngi ñuy bàyyi xel ci àdduna bi yëpp fu ñu mën a ne ci bi àdduna bi xam ngeen ne tey jii di àllarba yemoo ak ñaar fukki fan ak ñett dëppoo ak guddi ñaar fukki fan ak ñeent waxoon nañ leen ko njalbeen gi ni ni mu ko baaxoo defee moom Cheikh Mahamadul Moustapha ci xam ne alquranul karim moo doon pàgguteefug sëriñ tubaa weeru koor moo doon weeru sëriñ Touba dëkk bii ñu nekk di Touba moo di dëkkub sëriñ Touba fuñ mës a dégg sëriñ Touba it dafa jaar tey jii nag la yàlla dogaloon kaamil bi wàcc mu doon ko xat mu yaakaar naa ne ñaan gu réy gi mu ñaan yéen ñëpp yéen a ngi koy topp ci YouTube bi di ko ci gis mu doon koo xam ne nag ku jeex takk la ci liggéeyal sëriñ Touba ak yëngutoom akuk dalam lépp mi ngi jëm ci lu neex sëriñ Touba mu rasul ñuy ñaan borom bi subhaanahu wa taala nañ ko fi yàlla bàyyil lu yàgg lool te mu ànd ak wér jataay biit bokki jullit yi nga xam ne ñu ngi doon topp ci weeru koor yëpp naa ñu na Serigne Moustapha ban bis la koy defee tam doon lu leen yitteel nga xam ne ñëpp ñu ngi bàyyi seen i nelaw ba ñuy nekk ci bitim réew te xam nañ ne ñoom seen bët ma ngay toll ci set waaye teewut ñu naan Serigne bi wan waxtu lay wax loolu mooy tegtale ne kon Serigne bi yàlla def na la ci xoli taalibe yi loolu yàlla na yàgg lool. te dara waralu ko lu weesu gis ki ñu gis nga fab sa tànk teg ko ci siraatal mustaqim waaye saa yoo yëkkatee sa kàddu dolli waat leen bind bu bees ci Serigne Touba te du ma dañ ci di ko wax damay wax ne saa yoo waxee gaañe jël nañ ci bind bu ñuy piraat jëmewaat ko déwén ba nga waxaat ndax bala yàlla yi xiir ci nga gëstu ji sëriñ tubaa ak mag ñi booba ñi la doon nettali danaan sëñ tubaa noon na ma wala doomi Serigne Touba wax la. léegi nag li sëriñ Mor wax bari na xisa boo xam ne mën naa am sax mu jóge woon sëriñ Moustapha waaye mbokk ma koy nettali danaan dégg naa ci ku baax mu ne nangam du tudd sëriñ ba wala xisa ba sax mu pirataat ko loolu ñuy wax toggaat ba bu ko waxee day mel na bokkut ba sëriñ bi waxoon waaye kon kàddu yi ñu jóg lu mu ci doon danaan sëriñ Abdoul Ahad noonu na ma wala toog naa ci sëriñ son yi bu mun a nangam wala menn mag ci sëriñ Tuubaa mu ne nangam loolu nag moo def ci xoli murit yi jeexital ci yow ba saa yooy bëgg yëkkati sa kàddu ñoom ñëpp ñu di ko bàyyi xel kon ñoo ngi ñaari ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu bàyyi la fi lu yàgg lool te wéral sam sa saw yaram te bàyyi la sam xel te gën a leeral saw làmmiñ ba yéene ji am ci jox ko murit yi lépp suñu borom may leen ko kon ñu maa si déglu Cheikh Mouhamadul Moustapha baabi rabbin karim wa atabaati shahrin karim sahri tanqiyati sahri taskiyati sahri rahmati shahri lmaghfirati shahri litqi min annaar naqifu raajiina wa muammaliina حسن القبول غير أن ذلك لا يكون إلا لمن أكرمه الله عز وجل وهداه إلى سواء السبيل man yuridillahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lil islaam wa man yurid an yudillahu yajxal sadrahu dayqan arijan ka annama yasxadu fi sama kazalika yati llahu rijalan alladina la yuminun wa ha nahnu fi sahri ramadan alkarim naqulu ya baaxiya alxayr aqbil wa ya baaxiya alchar aqsir wa hasa sahrul barakat wa shahru rahmat wa shahru nafahat wa shahru infaq wa shahru birri wa silati fa tuuba liman zaaqa wa araf wa faa wa faasa wa zafira fa fi haasa yaqulu cheikh xadim nafu siyaami saari fi daareeni yakfikum alxaareeni wannaareeni xabattum allah alkarima alakrama bi xayri shahrin qad yaquulu alkarama ilaa siwaa ilaa siwaakum tantahi niiraanu yowma alqiyaamati kadal xosraanu sahida shahida xaaliqul wara li saaimin fi ramadaana biridaatu qaa'imin وفي هذا وفي هذا الإطار أيضا يقول الشيخ إني أحبك حب الزاد ذا طلب من مالك lishhad bi kawni abdallahi fiika bila xishin wa lishhad bi anni tubtu min xawar kon yéen bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki lislaam yi ñu ngi leen di nuyu niñ ko baaxoo waxtaan wi maa ngi woon ci néeg bi waaye maa ngi doon dégg sama xol sedd na ci bu baax euh, soññ ngeen ñi it bu baax a baax a baax a baax euh, a baax lépp lim war a gën a doon ci nun mooy euh, ak ak ak ab soñ ab soññee bu métti boo xam ne dana tax ñu góorgóorlu ngeen wax yaakaar la kon nag yaakaar jooju yàlla ko yàlla ak Sëñ ban ni ngeen ko yaakaare rek ñu mën ko eh, jëfe ci ndimbalu Sëñ ngi leen di nuyu yéen ñëpp te di leen gërëm di nuyu bokk jullit yi déglu yëpp di jiital di leen jot li nuyoo nag sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy jëwriñu kër sëñ Xaadim Mbacke leen jot li leen waxit kàddu gi rek li may wax rek mooy kàddoom jàppte nuyoom ak cantam ci weer wi di ko moo matale ci mboolem jullit ñëpp di ànd ak moom ak ci turam nag di siyaare alxalifatul am li taifatil muridi mi nga xam ne mooy jëwriñu yoon wi nekkal fi sëriñ bi te mat royukaay bu wér ci wàllu ak taalibe mat royukaay bu wér ci wàllu bëgg sëñ Tuubaa njëkk muy toog fii sax taal bi yëpp am ci moom yaakaar am ci moom kon ñu koy ñaanal liggéey bi mu si liggéeyal yéenee liggéeyal maam moo xam moo xam na mu ko day waaye yàlla ko ci yàlla ak maam jàppale te kenn bañ ci amal waaw ndax euh, ni mag ñi daa wax rek gaal gu teer rek gaawal lam laaj nga def ko ci waaw <laughs> noonu la mag ñi diggu tari daa wax ko defee ndax euh, wër na leen ne rek lu lu ne ci sëñ bi la jëm gaal gaal googu ci sëñ bi la jëm waaw te ku ne ci noonu bëgg nga lu lu ab yóbbante bu jëm ci bi waaw ndax koo xam ne fee boo doo fa yóbbaale dara te moom dong nga ko yaakaar waaw waaw ah, ko dara wax na la <laughs> yàlla na ci yàlla eh, xiir ñu gën a dégg dégg ak taalibe gën koo jariñoo ndax xam ne acteur bi bu soppi mukk ñun ñooy soppi inna laaha laa yughayyiru maa bi qawmin hattaa yughayyiru maa nit ñi li yàlla defoon moom du soppi nit ñi ñooy soppi waaw kon ku doxee na na dem seen sutu jaaxete daa waxe te mu koy faral ba tey ku doxee ci sëñ bi na mag ña doon doxe ba tey mu defal la lu mu doon defal moom waaw kon nag yàlla na yàlla di ñu doxee noonu ñu ngi leen di nuyu ci nag buntu weeru koor bi ñu ne buntu sans borom di buntu kër weeru koor bi nga xam ne day setal nit di sellal nit di weeru weeru njéggal weeru goreel ndax fukki fan yi noonu bii lii lay jëriñ bii lii lay jëriñ bii lii lay jëriñ kon nag ñu taxaw di yaakaar yàlla nangul nu waaye nangul googu ñu yaakaar ci yàlla ku yàlla dimbale dimbaleel boppam rek teg la ci yoonu yaa koy mën kon yàlla na dimbal ndax boo demee ci alxuraan nee na fa man yuridillah yahdihi wa yasrah sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harijan ka'annama fi sama ki yàlla bëgg mu jub da koy ubbil ab xolam mu mu lislaam leer fi moom ki yàlla namm ci moom mu wàcc ki yàlla maandu ci moom day wàcc ab dëna mu xat mel ne kuy yéeg ci asamaan ñogg jooju ngay def kanamaay saaru de sama boo doon yéeg ci asamaan ni nga naan ñogge nii nga xam ne daanaka doo mën a xalaat sax ba tey sax kuy yéeg ci ascenseur yi sax daanaka noonu ngay yi xew sax <laughs> nga naan ñogg <laughs> eh, eh, <laughs> noonu la yàlla misaale ñi nga xam ne seen dënn daa xat mënuñoo xam dara lu jëm ci yàlla maanu ci yàlla na ci yàlla kon yàlla na yàlla teg ñu ci yomb ñi ngi wax ñëpp weer wi ñu ne moom li ci euh, lislaam daa waxe weer bu duggee yaa baax yal xayri ak bil lañ daa wax yaa baax yal charri ak sir ki sàkk lu baax farlu ki ki ki daa wut lu bon ki daa jiim lu bon gàttañ weeru barke la weeru yërmande la weeru ngëneel weeru infaax soog a am birru te birru kat mooy lépp ci lislaam wañaangee laysal birru an tuwalloo wujuuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walaakinna al-birra man aamana billaahi wal yawmil aaxir wal malaa'ikati wal kitaabi wan nabiyyiina wa aatal maala alaa hubbihi shay'an wal yataamaa wal kon moo fa ne bu ñaanee dugg mu isaaxa da xam ne birru ci la lépp <laughs> kon yàlla na ci yàlla dimbali kon ngeen xam ne weeru profito la boo xam ne mën nga cee amee lu baax ndax sa diggante ak sa mbokk war jox war nga ciy def njëkk te yàlla ko képp koo xam ne am nga euh, tawféex yi euh, mos li ne ci ramadaan ci def lu baax te yow na lu woon xam nga tawféex kon sëriñ bi ci loolu la ñuy wax moo tax mu ne njariñul bu yaru koor nafu siyaami saari fi daari njariñul weeru koor dana leen fayal gàcce adduna ak gàcce kala wax na yéen ñi waar weeru koor it habatumullah alkarima akrama bi xayri chahrin qad yaqul karam yéen a ngi jaamu yàlla ci weer bi gën a tedd boo xam ne dana leen wommatal lu baax li ngeen dugg lépp ila siwaakum tantahi niiraanu yowm alqiyaamati tasaqosa sëriñ bi nee eh, sawara yéen ñi woor du jëm si ci yéen perte ngay ëllëg yéen ñi woor du jëm si ci yéen kon loolu jar naa góorgóor bu baax ba sahida xaaliqul wara li saaimin fi ramadaana bi ridal qaimin sëñ bi nee yàlla seereel na ñi eh, moom mi bind bindee bi seereel na ñi woor ngërëmam ñi nga xam ne daañu woor tey jii mën la yàlla seereel na leen moo tax koor sëñ bi inni uhibbuka hubba zaati ni ñuy bëgg jëmm moo moo moo ñëkk wax loolu ci àdduna waaw kenn mus ko wax loolu doo ko dégg àdduna waaw fonk naa la ba fonk de ni ñuy jëmm bu ma saa jub maa nee na ko wax loo wax ci nee na bu jubee loo ko wax mu ne xanaa sama gan ga koy teeru ma ne ko waaw mu ne ko mu daal lay defal la itti joo ko wax it man xanaa gan ngaa tax nga nga def sama gan ngeen daal la koy ñaanal mu daal di ko ah. def ko wax rek noonu la daa gaaw d'accord moo ko jox ah. kon nag ngeen xam ne euh, sëñ bi dafa seereloo koor ne ma seereel ci yàlla ab jaamam la yow laay nga nekk soo seereel sëñ bi bi kaw nii abdallahi bi bila xishin da du ma ko jar mu wali sa bi an li tukk min xawari kon kooku moo jox ak xam koor daf daa fonk nag ñaari lu bëree bëree bëri bokk ma sa wax de sama ñaari weer yi sama ñaari pàcc yi daal ko sama ñaari pàcc suñ sa jaam yi lu ne ci ku jàmm ko siif sama ñaari weer yi mooy weeru koor ak weeru koor sama ñaari pàcc yàlla dimbale bañ eh, eh, ñun bu lu sëñ bi ittiwoo rek moo moo moo ñuy ittee waaw sëñ bi nag li am njariñ ci lislaam lépp yombal nañ li am li njariñ ci lislaam sax lépp am am njariñ wala waxin waaye dañoo jubloo wax ne rek nebban ba dal ne nebban ba <laughs> jàppa jàppandal nanu ko <laughs> kon xam ne ndawal gi lépp lépp am njariñ waaye nebban bu nag waaw waaw <laughs> loolu nag sëñ bi jàppandal na ne lislaam lenn lu am njëriñ indi lu mu la wan lu mu la wan sa njëriñul adduna la sa njëriñul àlla waaye nag sëñ bi jegeel na lépp te yombalal ñu lépp koor nag dafa doonoon loo xam mu day day day day day bëgg da doon loo xam ne da ci daa soññeel boppam di ñëwal boppam ci jàkka ji di ci soññee buñ ne weer wi gune am xasida yoo xam ne day ñëw ci jàkka ji di mu di ko ci biir jàkka de naa ko si ñëw Mbàkke saa bu sëlmalee jàngal xasida nga xam ne noonu la ko doon defee xasida yi muy tagg koor mi yaa xayra bay bi beeg kon nag sëriñ moom si Abdul Xaadir ne sëñ Modou Sakho koo xam sama turando nee na ko nee na kon woore fu ne baax na waaye sa baay nee na woore tu woore Tuubaa di sakkan sëñ Abdul Xaadir nee na taman la sakkan rek lay wut <laughs> moo tax fu mu mën a dee rek bu koor ngàtt nga sax bu jotee mu ñu ñu woore ko Tuubaa <laughs> waaw kon nag xam ne man lu sakkan rek lay wut <laughs> kon nag yàlla na yàlla dimbali noonu ko sëriñ bi eh, ginnaaw yàlla may nañu ñu am may daan maanaam foo ko mën a defee ba xam ne dana sakkan alhamdulilahi rabbil nañ ci góorgóorlu te defe di ko defee rek ni mu loolu moom mooy lii leen di waxtaanal ngeen mattalee ko noonu li ngeen bi ngeen doon wax wax ma ne sa ko raxas jët boo gisee ñu naan saxarun tanqiid weeru seetal la moo tax tuub moo ci war a jiitu sëñ Abdou Xaadir naa naa dégg naa ci moom man day istixfaar damaa ñor lool boo gis du ma genn njël goo xam ne du ma yor sama kuréel def istixfaar tamit ndax ni ma salaatu ala nabi ñoree rek bala ma caa dem ci tuub lay jaar istixfaar lay jaar ndax bëgg naa bu ma bokk ca wa bil ashaari hum naa bokk it wal mustaghfiriina bil ashaari la ci yàlla wax <laughs> loolu joom laa ko nangoo kon nag yàlla nu yàlla dimbale istixfaar ñu gaa ci sëriñ bi nag ma nettaliwaat leen sëriñ bi danaa wax na ñu bëree bëri ni dañuy bëgg seen fas jóg dem ñuy dàq fas wi te te fas wi dàq dàq mënut a mooy tuub wala ngeen daqati dàqate fas wi dee leen ko dee leen ko tënk <laughs> loolu loolu ma jox leen ko bind sëñ bee ko <laughs> amiin wa taal waaw kon loolu sëñ bi rek ko mën a xamee noonu waaw kon nag na ngeen góorgóorlu bu baax ci tuub góorgóorlu bu baax ci fonk gën a fonk ramadaan ndax xam ne fii toll fukki fan yi mujj yi moo ci gën a baax ndax yonent bi salaam fukki fan yi mujj yi masaa ñëw da gën a takkaat ndiggam te moom musta dañ di ki gën a farlu ci nit ñi waaye farlu ga dafa yokk sadda mi saraho bu ay xasa amala day yeewaa këram it kenn mayetee na la dafa yi ñuy dundal guddi gi ngir bëgg tawféexi guddi gi nga xam ne moom la ci yàlla def te ku dajeeg moom sa mel na ne jaam nga juróom-ñett fukki at ak ñeent xaddari xayrum min alfi sahri moo ko gën sa lor moo gën junniy weer waaw te te te wa malaaka yi dañ ci wacc ànd ak kaw kaw bu mag moo moo bu mag bu mag lay àndal moom moom Jibril innaa naka noonu ansalnaahu wàcce nañ alquran fii laylatil qadri ci guddig laylatil qadri wa maa adraaka ana loola xamal maa laylatil qadri luy guddig laylatil laylatul yàlla bu bëggee réyal mbir day wax ma adrak ah, borom sax ndax xam nga dëgg-dëgg luy laylatul xadar mooy loolu ci wolof yeneen bi di déglu ko mu ne ko laylatul xadar yi laylatul xadar yi xayrun moo gën min alfi sahrin ci junniy weer dana zëlu dana wàcc al malaayika yi war ruuxu ak jibril fii haa ci guddi bi isni ci ndigalu seen borom min kulli amrin ànd ak mépp mbir ne dara def <laughs> ji nga xam ne moom la ñëpp bëgg jàmm jooju li ñu indaale xataa matla'il fajri ba jot fajar di jot te bu dee eh, ci yenn mufassiroona yi donte yenn yi woote nañ ci innaa anzalnaa fii laylatin mubaarakatin innaa kunnaa munziriina fiihaa yufraqu kullu amrin hakiimin mooy ba tey li may leen ñi dañ bëgg a teg eh, nisu boobu boobu ñaari lëmiir yi boo leen delloo benn bee eh, benn bee fiihaa ci guddig laylatul xadr yufraqu la day teqalee kullu amrin hakiim amran min indi kon nag bu ko defee nag sa sa sëriñ bi loolee sëñ sëñ Abdul Ahad daa nett eh, nelaw guddi xanaa biñ noppi biñ sëñ bi la xew waaw waaye guddi kenn mag ñi xamuñu nelaw ndax da ngay toog ba nëgëri yi ñu indi Euh, sëñ bi yanu yónni ndaw mu dukk dukk yón nee la ñëw nuyu sëñ bi nee na nga bindal ko lii wala mu yónni lay ndab nee la bi la jox teraanga yi wala lii balaa fajar na kon ñoom noonu lañ doon dundale li euh, guddi ji noonu lañ doon dunde ba njéeréem dafa mujj euh, noonu ñu daaxe basra si isali laa daa dégg bu wax noonu ñu daaxe basra ba nga ne koo gis rek ci mbirum jaamu yàlla la naan sëñ bi ne noonu la njëriñ koo gis rek ah, waaw waaw wax <laughs> riir mi da ngay dégg riir mi te riir mu ne ku ne ci lu la yóbbu ci yàlla ci ngeen kon nag yàlla na yàlla nag waxtu yu daax ci waajalu mën dara ah, waaye nag ngeen jàpp ci loolu rek ah, waaw sëñ Tuubaa moom loo ci jël lu néew néew boo ko jàppee ak buum la goo xam ne xorwatul wasxaal waaw euh, buum gu dëgër goo xam ne du dagg waaw euh, te moom ku jàpp ci nee na woon man de yaaraam ku jàpp ci man de boo bàyyee du ma bàyyi ñaamoo ko rek <laughs> kon nag yàlla na yàlla dimbali ba ba ba bañ jàpp bañ jàpp ba mu jàpp bañ jàpp ci moom ba mu xam ne jàpp nañ ci moom waaw tam dimbali ñu ba ba buñ bokk ci ñuy bàyyi mukk ba kullu haamin wa antum bi xayrin assalaamu aleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf euh, mbokk yi yakaar naa ne li ma waxoon ci njëlbeen gi agsi na mooy saa yu yëkkatee kàddoom euh, bind bu bees peq. waaw bi nee na mi ngi sant ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel jataay bi ci biir réew mi ak bitim réew ñëpp. ak ñi nga xam ne ñoo yor seeni rajo tey déglu fuñ mën a ne. ak bépp jullit nag bu am xemmemteef ci weeru woore Tuuba yal nañu yàlla ak kàttanu baatunu sëriñ bi dimbale ci sunu posteef ba ñun ñëpp ñu mel ni defe nañ ko fi amiin ba ginnaaw ñun ñëpp bu nu faatoondoo woon ci senn saa wax na ne kenn ku ne danaa jëflanteeg yow. ba nga jàpp ne yow dong ci laa nekk kooku mën na lépp macha allah jërëjëf euh, kon nag mbokk yi loolu moo doon jataay bi yaakaar naa ne guddi na lool ci ñi nga xam ne ñu ngi ci bitim réew rawatina ñi koy topp ci internet yi ñi koy bàyyi xel ci rajo bii di Lamp Fall FM 97.4 lëkkaloo woon ak 101.7 sëñ moor fu na jaarale na fa baatu tuub waaye euh, li mu bëggoon lépp sëñ bi firil na ko. ndekete daal bala ngaa dàq fas yi moom da nga koy tink ba noppi waaye boo ko dee dàq ci tink woo ko fas du dox ab mètre du dox mètre macha allah loolu yaakaar naa bind bu bees feq la tey li ma waxoon yaakaar naa léegi nga déggaat ko ci yeneen yeneen tànt ñu firé ko eh, moo tax nit ñi bëgg ngay wax Mbàkke Bàlla kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm di sant bokki taalibe yi nga xam ne ñoom ngay àndal waxtu wu ne ñu ne ci liggéey bi ñoom itam seen yaakaar ci sëriñ bi te mooy jaarale ko ci yow yàlla bu mu tas yaakaari sëriñ bi ci ñoom it yàlla bu mu tas seen mbokkum taalibe Fallou Gala Syll moo àndoon ak yéen Serigne Fallilou Syll moo nekkoon ci machine bi Serigne Khadim Seck euh, feggoo ak Alaaji Cheikh Guèye ak mbokk yi nga xam ne ñoo leen doon jàppale ci wàllu caméraman bi Serigne Mor xam si dina ma doon def waxtaan wi Serigne Mor Talla Kane wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu